bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp xibaar yu bari la yéene kaay yittewoo ci samedi tey jii a dëgëral jii la fay tàmbalib tukki war caa waxtaane coopération internationale maanaam lëkkaloo gi dox diggante ñaari réew yi di Sénégal ak Gambie laas ne lam fay gën a waxtaane mooy sécurité nationale kaaraange réew mi ndax ku ne xam na taxawaay ak solo si Gambie am ci xeex fitna ga am Casamance waaye itam trafic illicite de bois maanaam bant ba nanu koy génnee Casamance di ko jaay yéeni kaay bi ne Gambie daf caa am solo su rëy ci xeex bi ci Sénégal war a xeex direct news loola la xëy faram fàcce mooy enjeu visite njiit réew mi ca Gambie journal bi ne ñaari réew yooye taarixa leen boole waaye itam bi ne Gambie Sénégal ñoo bokk benn askan ñoo bokk itam daanaka aada ak cosaan wàllu jëflante yéeni kaay bi ne lu baree bari gàmbeek ak Sénégal sékk nañu ko moo xam mbay mi la moo xam napp mi càmm gi njënd ak njaay ak yeneen ak yeneen réew mi quotidien ne daanaka lépp danañu ko waxtaane waaye économique intégration mooy liy gën a am solo ci tukkib njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye ca Banjul googa tey vox populi yi ñu tukki président Bassirou Diomaye Faye booba tey ca Gambie yéene kaay bi ne libre circulation des personnes et des biens daanu ko waxtaane maanaam nit ñeeg seeni alal mën di jaabante ci diggante ñaari réew yi te duñ ci am génn jafe-jafe wàllum défense wàllu sécurité napp gi càmm gi mbay mi yéene kaay bi ne lii lépp daanu ko waxtaane ca ñoom ñaari njiiti réew yi di Adama Barrow ak Bassirou Diomaye ñoom ñaar ñoo fës ci xët gu njëkk l'Observateur mi nuy yeggee cadeau empoisonné bu Barrow ci Diomaye yi kaay bi ne mooy yokkute droit de douane ci ciment bu Sénégal journal bi ne réewum Gambie imposé na importateur sénégalais a dugg gi vox populi yeggeenu ko ne gouvernement Ousmane Sonko noona la waajalee tabaski gi yéenekaay bi ne njiitu gouvernement bi yéegle na noona ñetti dogal yu nu jël ngir tabaski gi mucc ayib ci Sénégal bokk na ci woyefal contrôle camion yi indi xar jóge bitim réew jëm ci Sénégal waaye it teggi lépp luy tax mayit camion yooy indi xar ñett sàmm nekk ca ngir mën a sàmm jur ga yéenekaay bi ne loolaa nga war a am diggante fukki fan ak juróom-ñeent weeru avril ba ñaari fan weeru août l'observateur ne moo taxit éleveurs yi digg nañu benn million ngi xar boo xam ne danañu mel ni ku naan lu war a mën a ne la ndax gouvernement bi yëgle na ñetti dogal yoo xam ne jàpp na ne bu ko jëlee xar moom kenn du ko jooy ci tabaski bi nu dëkmal lay fa jàpp ca la gouvernement prend les moutons par les cornes yéegal ñu ni gouvernement bi waajale tabaski bi nu dëkmal FMI booba jamono la soleil yi mu defoon maanaam tolluwaayu Sénégal ci wàllu koom weer ak at mi nu dëkmal dara soppeeku wa ca yéene kaay bi ne la FMI maintient ses ci wàllu croissance bu Sénégal journal bi ne fonds monétaire international jàpp na ne Sénégal war na am taux de croissance buy toll ci juróom-ñett yu toftal ñett maanaam loola di ko teg ci ginnaaw Niger mi am waaye ci kanamu Rwanda mi am 6 virgule 9 pour cent waaye it Côte am ku ne niki Éthiopie Bénin moom ma nga ca 6 pour sukkandikoo ci Le Soleil waaye nguuru président Bassirou Diomaye Faye na xam ne pétrole ak gaz moom at mi ñu ne du ko indil dara ca la tribune la ko expert financier bi di Seydina Ndiaye xamle mu ni bu kenn yaakaar ci ñaari ressources yooyu di pétrole ak gaz ngir feesal keesu réew mi dara du ko jur directeur général société mine du Sénégal mel ni kuy jox dëgg président Bassirou Diomaye Faye ca source a jëm ci tëggaat contrat pétrole mine ak gaz yi bés bi le jour sax ci wàllu pétrole di ñu yëgal ne Woodside ma ngay doxal ndax premier baril di barigo bu njëkk ma ngi koy séentu weeru juin le quotidien it ma nga ca gaz ba ne gannaaw bañ dàqee exploitation GTA am na diggante Sénégal ak Mauritanie ñaari réew yi yéene kaay bi ne waxtaan nanu ba juboo ca mbir ma waaye daanu càmbar maanaam daanu audité njëgu boobale production wala audit googa sax le quotidien gis ne Diomaye Faye mi ngi ci tànki Macky Sall ak Abdoulaye Wade nañu defoon la def yéene kaay ñooña ba ñuy doog a yegsi ci nguur gi lépp lu fi ñañu wuutu bàyyi woon dañ ko doon càmbar Guy Marius Sagna booba jamono question écrite ya mu jagleel gouvernement ba yéene bi muy gestion des question écrite ak ñaar la yónnee gis ne Guy Marius Sagna ngay teg xaat pression gouvernement Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom ak doole jiñ ko nar a yokkal ni premier ministre moo jaaxal Abdoul Mbaye miy artu ca risque ya ca boobale bi yéenekaay buy dikkaat ci décret gi tënk sañ-sañu ministre yi ministre de l'éducation Moustapha Guirassy booba jamono ca Vox Populi ma ngay wax la nar ca lañu ko dénk coppite yemu ca nar a indi la wax directeur chef de service ak yeneen kilifay ministère de l'éducation lépp la yéenekaay ba xëy faram fàccee genn ca ponk ya mooy Moustapha Guirassy jàpp na ne am na yu baree bari a yu soxal askan ay kàttanam ba njàng meeg njàngale mi mucc ayib ci Sénégal njiitu réewu Sénégal ba woon Macky Sall moom ma ngay doxal enquête ne lancement pacte de Paris pour les peuples et la di 4P ca Washington teewee na ko moom njiitu ma woon yéene kaay bi ne daje naag ministre Cheikh Diback Abdourahmane Sarr bañ demee ca Washington googa Paris nag Macron dana ko fa dalal dimanche bi ñu dëkmal moom Macky dem na waaye lim fi def mi fi tege a yéenekaay bi ne génn na kaso démb gendarmerie ak procureur yéenekaay bi ne ba tey benn firnde ca lañu ko doon tuumaal di tentative d'atteinte à la sûreté nationale njabootam jàpp ne APR képp ñoo tëgg bi lépp kompoloo teg ko ci ndoddu seen mbokk mooma di Ousmane Kabiline Diatta yéenekaay bi ne fan yi ñu dëkmal nag dana jéebaane jéebaane ju doy waar Ndella Madior Diouf mi ñu tej kaso ci mbiram pouponnière Kër Yërmande Les Échos ne génn foofa la bëgg ndax dugal nab demande de liberté provisoire càkkutee fu bàyyib ne gëndiku googa juge ba mu ko jox yéenekaay bi ne am na benn ay bés ngir xalaat ci ay mbiram libération jamono mi ngi ci mbiri nestaleeg wuute la gi muy def ci xale yi journal bi ne ay mbir yu sew yu tuuti la nestale di def bokk na ci yokk suukar ajouté ci ñuy def ci li ñuy jox xale yi kenn waru koo def ci ñam gu ñuy jox ay tuut tànk ndax amut njariñ ba noppi dafa am pouvoir addictif maanaam day tax ñu takk ca yëf ya ba mel ni luñ dootut mën a bàyyi ni ki dorog Karen Hoffman di professeur santé publique ne loola moom day nduru sax pratique colonialiste maanaam la colon ya doon def te lu kenn warta nangu la El Hadj moom li mënatul nangu ba waral mu mooy 2STV mi TDS SA ma Nafissatou Diouf jiite di diffuser ca bitim réew loola libération ne tribunal jox na a Bassirou Diomaye Faye di am ak ni langue politique bi tëggaatoo enquête wi laaj la xëy samp booba jamono réew mi quotidien record di ñu yëgal ne Sadio Mané ngay mel ni kuy samp boppam ca Al Nassr démb yéene kaay bi ne ca Saudi Pro League gam doon jongante toj na fa Cristiano Ronaldo new fa waaye Sadio wane na ni moom ma nga fa ndax ñaari but yëmu dugal Les Échos dugg ak ñun yëgal ñu braquage bi fa am bëccëgu Ndar kàmm yéene kaay bi ne këru kuñ naan rabek malal la ay samba boy songu yore ngànnaay gannaaw ba ñu neutraliser gardien ba yéene kaay ba ne jël nañ fa fanweeri million ak yeneen jumtukaay yu ne woon ca kër ga kër gee di pale nag fa njiitu réew mi dëkk bi di Les Échos ne Bassirou Diomaye Faye daa mel ni ma ngay tàmbale déménage ndax fauteuil ba président Macky Sall doon toog moom njiitu bees mi soppi na ko wut beneen duñ ci dolli leneen foofu lañu yem ñaanal leen kenn la jàmm dig daje altine incha